tayib kon ibnu dina doon muy hmm. doom bu góor muy benn hmm. ñaareel bi mooy ibnul ibn mooy sët bu góor hmm. boo xam ne sa doom bu góor moo ko jur sa doom bu góor doomam dina doon mën na laa doon yewit man nga koy doon naka lay doon ne loolu njàngal dina ci ñëw bi ñëwee ci baabu xaj bu mm-hmm. tayib al ab muy baay mm-hmm. baay bu góor moom la ñuy wax warasa moom la ñuy wax aslul warasa zakar mm-hmm. mooy ki nga xam ne mooy cusaanu way doon ci góor ñi mooy baay kon baay dina doon doomam doom it mën naa doon baayam waaye baay dina doon jadd muy maam bu góor bi nga xam ne moo jur pàpp kooku tamit bokk na ci góor ñuy doon maam boobu nag jaddul jadd jaddul jadd wa in ala mën naa doon mooy maam bu góor bu jur sa papa bu fi nekkut hmm. maam bu góor bi jur maam bu fi nekkut hmm. maam bu góor bu jur maami maam bu fi nekkut hmm. ñooy ñëpp mën nañoo doon ndax ñoom dañ bokk ci calag la gi ñëwee ci wàllu wàllu asaba mooy wàllu gaño gi euh, muy ñeent ci góor am na ku ñëw aqu shaqiq mooy góor bi nga xam ne yow moom yéen a bokk ndey ak baay kooku bokk na ci ñi yàlla seppi ci société bi ne ñoom it mm. bokk nañ ci way doon ci góor ku ñëw ak axalil ab mm. ki nga xam ne yow moom baay rek ngeen bokk baay kese mm-hmm. bokk leen yaay waaye yéen bokk benn pàpp mm-hmm. kooku it bokk na ci góor ñi nga xam ne mm. lislam jox ne leen cër ci miiras hmm. ñu amaat ku ñoo wax ibnu ak shaqiq hmm. sa mbokk mi nga xam ne yow ak moom yéen a bokk ndey ak baay hmm. kooku doomam mën na laa doon yow it mën nga koy doon waaw parce que baayam bokk na ci woy doon yi eh. su fa baaji nekkul moom muy ñëw jël taxawaayu papaam su fa koog nekkul ba tey lu ñoo wax ibnu axalil abbu moom dana ñëw ki nga xam ne mook sa papa ñoo bokk benn baay mm-hmm. kooko doomam mën na laa doon yow it mën nga doon mm-hmm. am na ku ñoo wax amul shaqiq mooy rakki pap wala magi pàpp bu góor mm-hmm. kooko bokk na ci way doon di ci góor ñu ko wax baay bu ndaw moo xam nag moo mag baay wala baay moo ko mag waaye olof mook ko wax bu ndaw. bàyyi tax bàyyi tax olof di ko bàyyi tax. ñun làkku Serekunda bi ñu ko wax. papa bu ndaw. te moom mook sa papa. Mm-hmm. seen baay ñoo bokk. Mm-hmm. ndey ak baay. kooku bu fa nekkut. Mm-hmm. Euh, amulil ab. mooy bàyyi tax boo xam ne mook sa baay ñoo bokk benn baay waaye bokkuñu yaay. kooku bu fa nekkut. ibnu ak shaqiq ibnu amu shaqiq ibn amu shaqiq mooy ki nga xam ne hmm. moom papaam ak sa baay ño bokk ndey ak baay hmm. kooku bu fa nekkut hmm. ibn amu lil ab mooy ki nga xam ne baayam ak sa pap ñoo bokk benn baay moom it bokk na ci ñu lislaam wala ñu sharia tànn ci wëy doon ci góor moom it si la bokk fukk ñetteel ba ñeenteel bi mooy azawju jëkkër ndax ci jotaay bi passé waxoon naa ne way dencante ñoom ñaar seen miraas moom la ñu tuddee sababiya waaw maanaan moom sëy hmm. moo tax ñu doonant ñoom ñaar hmm. jëkkër ak jabar hmm. lu tax ñoom ñaar ñuy doonante mooy sabab bi mooy aziwaaj sëy kese waaye bokkuñ ci wàllu deret am na nag jabar yoo xam ne bokk ngaa ñoom ci wàllu deret hmm. loolu moom ñaari pàcc yëpp lay doon hmm. day doonee sababiya hmm. ba pare tamit day doon nasabiya waaye su boobaa nag day doonoo ci anam bi nga xam ne moo gën a dëgër waaw moom la borom xulaasa bu doon wax ne wa man yaritu bi aqwa bi doon may ni képp kuy doon na ñaari cër dafay doon ne cër bi gën a dëgër nga xam na du daanu bu fekkee ne ibnu amam la Mm-hmm. ibnu amu mën naa daanu ndax bu amu shaqi ñëwee ibnu amu dootu doonati ibnu amu lil abu bu amu ñëwee ibnu amu du doon mm-hmm. kon waaye zawjee moom kenn du ko yéer lu dut mm-hmm. ci xaj bu bi nga xam ne mooy xaj bul awsaaf yu mel ni qatl ixtilaafu diin ak riq ñett yooyu jotaay romboon na ci moom bu dowul yooyu kenn mënu ko tere doon kon su boobaa moomu doonee ci anamu jëkkër hmm. moo gën a diis moo gën a am doole muy doonoo ci anamu tabaarakallaahu asababiya walla nasabiya hmm. tayib hmm. muy ñaar fukk muy fukk ak ñeent fukk ak juróomeel bi mooy al wali wali mooy ki goreel ab jaamam mu génn àdduna jaam bi génn àdduna bàyyi fi ki goreel te moom bàyyiwul ko ko doon du doom bu góor du doom bu jigéen wala bàyyi nañ ñu ko doon waaye ñooñu mën nañoo jeexal alal ji hmm. kii dafa goreel ab jaam jaam bi génn àdduna bàyyiwul baay bàyyiwul yaay bàyyiwul kenn alal wujjoot ko ko doon hmm. alalam ji niñ koy def kii nga xam ne moo ko goreel mooy doon alalam ji yépp yow mi ko goreel hmm. parce que yaa ko jox lu ñoo wax buumu ngoreel yaa ko jox kon am nga doole man koy doon ba bàyyil ko ko doon Nuni su baye ku ko doon te mënul jeexal alal ji hmm. te bokk ci ñi doon rad hmm. wala zawjiya maanaam nit ki mo genn aduna baye fi benn jabar kese te jabar borom xam-xam yi bari ñu ne dañ ko rad ci jabar mom jabar te bàyyiwul doom kon jabar gi dañ ko jox rubuul mal moy alal ji lañu xaj ñeenti xaj hmm. ñu jox ko ñentel ba ñettel ba dess wulli bi mo koy kon wëlli moom ci ñaari anam yoy lay doon ne benn mu ñu doon alal yépp mom hmm. na doon fard way asaba lay doon rek am amna doole hmm. jël alal ji yépp wala hit bu fa nekké way doon yu mënul jeex la alal hmm. mu toog xaar leen biñ jëlee fardu ba pare la ci dess mom tamit mu jël ko yépp kon fukki goor yi ak juroom moy ñi nga xam ñoy ñooy doon ci goor yi nga wax ne ñom ñëpp bu ñu dajee ci benn masala ndax man nañu mirage foog na suma ma jumuloon tayib fukki góor ak juróomi ba ñu dajee ci benn masala mhm. lal mooy masala mooy bu nit ki génnee àdduna mhm. bàyyi fukki góor ak juróom yi tudd ñëpp mhm. muy doom doomi doom bu góor doom bu góor doomi doom bu góor baay maam bu góor mbokk mu bokk ndeeg baay mbokk mu góor ma bokkat baay doomi mbokk mu góor moo bokk ndeeg baay doomi mbokk mu góor moo xam ne baay la ngeen bokk baay tax bu bokk sa baay ndeeg baay baay tax boo xam ne mook sa baay baay leen bokk doomi baay tax bu bokk ak sa baay ndeeg baay doomi baay tax bu bokk sa baay benn baay ak am mooy euh, asaba mu bàyyi fa wëli ñëpp ñëw toog zawja tam ñëw toog su boobaa ñett rek ñooy miraas ñett ñooy miraas maanaam ñoom dañuy yérante am na koo xam ne bu ñëwee ci miraas kii du miraas kon bi na fukki juróom fukki góor ak juróom ñooy doon minute ne ñëpp dañuy ñëw doon ne ndoor waaye ñëpp bi ñu dajee ci benn jotaay yow mi nga xam ne yaay séddale miraas ñett rek ngay jox miraas mi ñu ci des ñëpp dañooy dem toog ñett ñi mooy baay baay moom du daanu ci miraas kenn mënu ko daane ci miraas mbam mooy xajbul awsaaf moom baay ak lu masala bi mën a xat-xat bàyyi moom dana doon cëram benn mu doon fardu sudus wala mu doon asaba kon bàyyi yow muy séddale miraas ñëw fekk njaboot gi ñëpp toog ay góor bàyyi teg ku ne la ndax mu bokk na ci ñuy miraas nga delli seppi waa doom bu góor doom bu góor moom it kenn mënu ko daane ci miraas parce que moom mooy farul waari zakar mooy doom bu góor moom mooy ki nga xam ne dafa jógee ci baay tey góor kooku tamit du daanu ci miraas ba mooy ak xajul awsaaf nga indi azawju muy jëkkër ña ca des ñëpp dañooy daanu ci miraas mi kenn du doon su boobaa nag baay dañ ko jox sudusul maal sudusul maal mooy alal ji dañu ko xaaj juróom-benni pàcc juróom-benneel bi baay moo ko moom jëkkër hmm. ñu xaaj alal ji ñeenti xaaj hmm. ñeenteel bi moo ko moom doom bu góor bii moom hmm. din ko tombal moom dafay doon ci asaba day ñëw toog su baay jëlee li war a jël jëkkër jël li mu war a jël ñu ca des ñëpp tabaarakallaahu dañuy dal di daanu dañuy dem xaar léegi masala bi nag day wéree fukk ak ñaar waw ndax dañoo jël maqaama fardu ab muy sudus hmm. ak maqaama fardu zawj muy rubu hmm. ñoom ñaar dañu tadaaxul wala dañu tawaafuq fi nisif ndax sudus juróom-benn am na xaaf muy tiri foo am na xaaf muy two hmm. léegi two bi ngay jël dóor ko ci six muy Times. Hmm. mu jox la toylif. Hmm. toylif boobu nag. Hmm. foofu mooy wéruwaay masala bi. su ko defee bàyyi su du sa lay jël. muy ñaar ndax fukk ak ñaar ñaari six moo fa nekk. Ah, loolu mooy sudd subaay baay jëkkër it ñu jox ko rubuum bi ca aslu masala mooy muy fukk ak ñaar ba fukk ak ñaar ñaata ñeent moo fa nekk ñett loolu mooy rubuum bi léegi nga jël ñett ji jëkkër am boole ko ñaari baay am muy juróom juróom nag boo ko génnee ci fukk ak ñaar lu mooy des juróom-ñaar juróom-ñaar yooyu doom bu góor bii moo ko moom kon ñëpp bi ndajee ci masala ñoom góor ñi masala bi nii lay wéree sëñ bi xam nga ni bi danga leeral nga góor yëpp ñu dajee si miraas lu dégg nga leeral mooy ñett rek ñooy doon mhm. mooy lan bàyyi dombu bu ak jëkkër kan ñoo fu mu ne gis daal si miraas ñoom duñu rot mukk kan Cheikh euh, Sa Moussa ni bëggal bi nga fanté ni jigeen ñëpp ñun tamit bu dajee ci miraas ñan ak ñan ñoo war jere doon euh jigeen ñi nga xamne ñoy doon ñoom fukk leen fukk yi boko bolé boolee fukk juróom muy ñaar fukk ak juroom ñoom ki ci njëkk mooy yaay ñu ko ndey ndey dina doon mu yaay te jigéen la doom bu jigéen boo xam ne yaa ko jur moom it dina doon te jigéen la sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor moo ko jur sa doom bu góor doomam bu jigéen kooku dina miraas waaye nag sa doom bu jigéen moom doomam mënut laa miraas ndax moom mu ngi bokk ci sawil arxam moom ci nekk ndey bala bokk ci roxma bala bokk mm-hmm. muy ñeent mm-hmm. mbokk mu jigéen mi nga xam ne yow moom yéen a bokk ndey ak baay moom it dina miraas ak mbokk mu jigéen moo xam ne yow moom yéen a bokk benn baay mm-hmm. moom it dina miraas ak mbokk mu jigéen moo bokkat benn ndey kon ñetti mbokk jigéen ñi moo am kii yow moom yéen a bokk ndey ak baay kii yéen a bokk benn papa waaye bokk leen yaay mm. kii yéen a bokk benn yaay waaye bokk leen papa ñu ngi ko bannu axyaaf muy ixwatul umm ñoom na ñaareel góor ñi jigéen ñi ñëpp yemle ci miraas foofu moom qaayida bi nga xam ne moo doon wax ne ida stawa zakru wal untha fi rutbati muasibaana irtha mm. qaayida boobu dafay damm tanqarimu qaayida fi hadihi masala mm. ndax laa yafdulu zukuruhum al inaas ñoom góor ñi din ëppale jigéen ñi waaye dañooy tolloo ndax ñoom ñoom ñoo bokk benn anam bu ñu miraase mooy ci wàllu ndey tey su ko defee zawju zawja ñëw muy jabar waaw soo amee jabar nga am mu'tiqatun mooy jigéen bi nga xam ne dafa goreel ab jaamam kon fukki yi ñooy doon ci jigéen ñi nga amaat maam bu jigéen boo xam ne moo jur sa baay ak maam bu jigéen bu jur sa yaay muy fukki jigéen fekk jigéen yi hmm. ñooy miiras ci jigéen ñi ñeneen ñu dut ñoom hmm. lislaam boolewul leen ci way doon yi hmm. kon fukki jigéen yi ñoom la yàlla seppi ci biir société bi ne ñoom am nañ ak miiras képp koo xam ne génn na àdduna bàyyi fi alal ñii ñoo la war a mën a miiras ci ay jigéen ñoom ñëpp nag bu ñu dajee ci masala juróom ñooy miiras juróom yaay dina miraas hmm. moom sudus leen koy jox sudus hmm. doom bu jigéen hmm. dina miraas ñu jox ko nisful maal muy génn wàlle alal ji yépp moom miraas bintu libni muy sët bu jigéen bu tukkee ci doom bu góor moom it dina miraas ñu jox ko sudus takmilata sulatayn su ko defee uxtu shaqiqa dina miraas waaye moom day jël asaba ndax qaayida bi day wax ne al bannaatu maal axawaati asaba doom yu jigéen ñi biñ fi nekkee mbokk yu jigéen ñi mbokk yu jigéen ñi ñoom diñ leen tombal waaye dañoo jël asaba loolu moom la ñuy tuddee asabatu maal xayr mu ngeen am ne asabatu bi nafs asabatu bil xayr bii mooy asabatu maal xayr su ko defee jabar jël sumun muy juróom-ñetteelu xaaja alal ji yëpp hmm. kon juróom ñi rek ñooy doon hmm. yaay hmm. doom bu jigéen set bu jigéen mbokk mu jigéen ma bokk baay ak jabar juróomi ñooy miraas ci des ñëpp dañooy rot ci miraas mi su ko defee masala bi day wéere ñaar fukk ak ñeent ñaar fukk ñeent ndax dañooy xool maqaama fardu zawja muy sumun muy juróom-ñett ñu jël maqaamul ummu bi hmm. maxraja fardu ummu bi muy sudus hmm. ak maxraja fardu bint libni muy sudus ñoom ñaar tamaasul la ñu jël benn sudus bi léegi nag six ak eight soo ko xoolee ñu ñaar dafeen am tawaafoq fi nis bu nekk am na xaaf hmm. six xajut ci eight eight tamit buñ ko séedu dafay des waaye am na li dëppoo ñoom ñaar mooy nis eight xaafam bi mooy four six xaafam bi mooy three léegi three ngay jël dóor ko ci eight wala nga jël four dóor ko ci six daf laa jox ñaar fukk ak ñeent masala boobu foofu la mën a wéree. twenty four su ko defee twenty four yaay moom moom sudus bi ñu ne ñaata six moo nekk ci twenty four ñu ne ñeent ñu ne kon yaay cër bi mu am ci masala bi mooy ñeent cër ñeent la am ñu jox ko yaay muy sudusam bi mm-hmm. doom bu jigéen dafay jël xaaf twenty four xaaf bi mooy fukk ak ñaar doom bu jigéen bi moo ko moom fukk ak ñaar kan moo ci topp mooy sët bu jigéen moom tamit sudus lay jël muy ñeenti cër comme yaay ya sudus lay jël moom tam mu jël sudus su ko defee jabar jël sumunam bi sumun bi noo koy xamee mooy twenty four ñaata it moo fa nekk tiri tiri kon moom tiri mooy cëram léegi na nga boole li nga am parce que wax naa ne shaqiqa bi moom duñ ko tombul dafa luñ ko dara den ko dafa ñëw toog di xaar su desee mu jël bu de desut mu toog léegi ne seet yaay am na foo sët bu sët bu jigéen am foo muy éet su ko defee euh, doom bu jigéen bi jël xaaf muy toylif toylif ak ak cëru yaay bi ak cëru euh, zawja bi ak cëru bint bi ak cëru bint limni bi daf laa jox twenty three ndax yaa am na foo hmm. bint limni am foo hmm. muy et hmm. yaa jabar ji am tiri muy lan eleven bu jigéen bi am fukk ak ñaar muy ñaata twenty mu des mu des benn uxtu shaqiqa bi mu jël ko asabatu maal xayr kon jigéen ñëpp bu ñu dajee ci miraas Mm-hmm. miraas bi nii lay tëdd yeneen jigéen ñëpp mm-hmm. maam bu jigéen ak mm-hmm. tabaarakallaahu uxtilil abak ñoom ñëpp dañoo rot ci masala ba kon mbokk yi